la paix ñun mom ñëpp ñuy sargal. ah waaw ñun fi ci Touba bo jangé ci Touba rek nga xamna jox nañ gëdd jigéen c'est parce que soxna jaar Buso sa motax ñu jox ko gëdd motax lu ñu am li ñu am lepp ci Touba. ñun da dara jigen duñ ko duñ ko wax kenn parce que liñ ci wara am lepp ñu ko ci am ndax soxna jaar ñu daan ko dund muy am solo tay ñu diko dund muy ñak solo lol ci momi Macky Sall gi mais ñun dañ ko daan dund lu neex nak biñu nekké PDS di and ak Fallou mais léegi bu 8 mars ñëwee ñun duñ ko sax. waaw ni ma koy dundee rek comme ni ko nit ñi dundee rek ay jigéen lañ d'accord ay jigéen lañ ñu tey mu nekk 8 euh, mars journée de la femme parce que affaire bi ma ne daf ma laalaal parce que damay def sama annif le 7 mars le mars ñëw. ma ci sant yàlla bu baax a baax na bi fekkoon na fi yeneen jigéen te fekkaatu leen fii ni ma koy dundee rek comme ni ko jigéen ñi dundee rek liggéey dóor waar gëm sama bopp. soxla mo tamit bi len lo xamne si góor la joge pour mu dem ko defal pour man jigen même buñu len leen ben journée sax téwul dañoo wara a liggéey gëm seen bop dóor war tay genre yi yu melni man ak ñeneen ñi nga xamne ñoy ñooy liggéey ak ñu nekk ci kër ak ñëpp ñu di len sargal di len delo njëkkal di len jox ben journée bo xamne si ne dañ ne pour jigen ñi rek jigen yalla moko ñëk téral kon tamit jigen dafa wara xam bopam bu musuma ànd ak kenn moom sa andal a àndal ma tok di wax ak yow itam. ci ndigalam lay dox ci politique te ci baasam laay politique ndax maa nekk responsable de femme jiital ko ay jigéenam yëpp may ànd ak moom ci politique waaye mosuma ànd ak keneen. yàlla dogal sama xamante ak moom taxu ko woon yàgg mais muy ku tekki dara ci Sénégal muy ku bari ay ndombay tànk nekkoon fi inspecteur douane nekkoon fi ku jàmbaar koo xamante ni si ndombay tànk yi mu làmbool ëpp na. ñu may dégg fu ne. loolu laay rêvé te foofu laa bëgg a egg nag incha allah. ma ne la ñun amuñu defet man dama la ko répété de ne la ñun amuñu benn defet dañoo fekkoon ci parti bi ñu am 6000 voix ñu am fi 12000 et quelques voix kon donc ñun amuñu defet te it ñun rek ñoo campagne dëkk nag bu fekkee kenn rek campagne lam am bu yokkoo plus de 6000 et quelques voix kon kooko jàmbaar la muy maam Xadim Cheikh Moutala ñoo ànd ak moom campagne. campagne bi nak ñu koy sante bu baax balay sabri sëñ Mbàkke Maaram politique bu and ak diiné angor ngor ñun toujours ci ngor ak diiné la ñuy wax ñuy référé wu ci loolu parce que ñun suñu politique yaakaar naa suñu baas bi ñi ci bokk may sante bu baax xalé yi may andal muy ndey lay faati géey yaay ami ndaw xadi siti sek jàpp na ne ko fenn ba gis nu fa ñun dañu gëm suñu bop ñu liggéey lañu gëm def suñu formation nek yor ko di ci liggéey 2000 bi Ablaye Wade faloo ba léegi sëñ Fallou mu ngi indi formation ci dëkk bi moo fi jëkk indi banque bu ñu wax Taif Xéewal bu ñu koy seet tey noo ngi ci junniy groupement ak juróomi téeméer juróom fukk yoo xam ne formé nañ ko ci dëkk bi yor ko di liggéey suñu liggéey ci kenn dégguñu ci benn bruit politique nag du saagante du xasante du waxante ju ñaaw mën a cadre sa mbooloo la téye ko fexe bañ di la déglu. li may dénk jigéen ñi ak bépp jigéen bu mu mënti doon mu liggéey ñafe gëm boppam te bañ a xaar kenn ci lenn. na liggéey ñafe gëm boppam bañ xaar kenn ci leen bu mu xaar kenn di ko defal dara parce que oto yu rafet yi ak kër yu rafet yi ku liggéey ñafe gëm sa bopp def ko mais bul ko xaar benn yoon ci góor ak naka sa dul noonu. yéen nag sama référence soxna Ami Mbacke sëñ Mbacke soxna waaw mooy sama référence ci ci yiw ak ci maandu ak ci gëm boppam looloo tax ma def ko référence. lu tax ma di ko rey. ngoram fulaam faydaam xam na sëñ Bàmba ko jur seex Murtala ko jur mu wëlbatiku takk ndiggeem di liggéey di daan dooleem di jël ay employéem ñu di ko liggéeyal mu ciy dimbale di nit ñi ci tuubaa di dimbale jigéen ñi di dimbale góor ñi te man dama bëgg nit koo xam ne nii day engagé wu moo tax mu nekk sama référence lepp lu may def rek dama ko ci jital c'est parce que moy sama référence. pour man jigen li ngay lek na lew muy nga ñaq ko mu lew la doom fo taxaw do rouss da ngay siggi di meuna jaaga jaag parce que xam nga li ngay lek yow ya ko ñaq mu lew la doom pour man jigen bu mën don rek na gëm bopam bu mu xaar kenn ci dara man lool lay encourager sama moroomu jigen ni mm, sama yaay moy sama kay moy sama idol parce que dafa nekkoon nit ko xamni ci dafa ñime liggey ñafé gëm bopam te loolu la yar tamit ak njabootam wax dëgg yàlla lool ci la leen yar ba ni mu demee jooy nañ ko de mais tamit euh, ñànkiwuñ ndax mënoon nañoo mënoon naa dem tey ñu ñuy dégg ci leneen waaye déedéet man mooy sama idole ci bëgg liggéey ci gëm yàlla ci jaamu yàlla ci doylu ak bëgg ak njabootam. waaw ma delsiwaat rek di sant ñii jàkkaarloog man di ma jël tay muy sëñ Mbacke Dieng ndax mu di Mouride info defe woon naa ne. su fekkonte ni si tey nekkuñu tuubaa ñu dinañ gën a tumuraanke ndax mooy leeral li ñuy wax mooy leeral li ñuy liggéey moo nuy jëmale kanam fépp fu nu nekk woo leen balaa deux minutes ñu yegg suñuy tànk te danañ ko jël tasaari ko ñëpp di ko dégg te kenn nu ci lenn loo xam ne luy débordeel kenn la ko waroon a def sax lu lool sax dinañ ko defar ba mu rafet ñu génne ko kon macha allah ca kaw ca kanam maa ngi leen di ñaanal nag si Ahmadou Bamba mi nga xamante ni si moo tax ñu nekk ci dëkk bi ba tuddee ko rajo bii ñu nekk ak télévision bii ñu nekk suñu borom yàlla jàppale leen ca kaw ca kanam kàttanal leen ba may dem pale incha allah rabbi ñu di ma fa fekk am fa place bu yaa yaa boo xamante ni si yàlla da leen di defar ak képp ku fay liggéey ci barke Seydina Mohamed maa ngi ndax dama ko doon gis ay jaar-jaaram ci programme mu maam Xari Mbàkke Sëñ Murtala ma gis ko nag muy sit bu am solo may laa si sama moroomu jigéen ñëpp ñi nga xam ne dañuy politique xamal leen ne site bu am solo la te ku bëgg loo bëgg mu tasaaroo te ànd akug yiw akug dal dina leen seet si. waaw ma di leen gërëm yéen waa site internet info ma di len sante bu baax di len gëram parce que li ngeen def tamit dafa am importance macha allah maa ngi len di suivre suma duggé YouTube yépp dama len di suivre parce que li ngeen def tamit dafa am jari di len ñaanal rek ci kaw ca kanam ci kaw ci kanam seen site bi yeena xam fa ngeen bëgg mu egg fa yalla na feen suñu borom eggale bam mu nekk ay télé ay rajo ngeen siiw ci monde bi yépp nak lool la len di ñaanal yalla man na te dina ko def te inshallah dina baax parce que da ngeen gëm seen bop nak ma xam bo ki jité site bi du question lim nekk sama nijaay motax mais dafa gëm boppam yàgg ñafe lu tey rek bi ñu xamante yàgg na ma di leen ñaanal rek ca kaw ca kanam li ngeen bëgg daal yéen ko xam yàlla na ko suñu borom defal. lu ma mën ci jàpp ci yéen danaa ko def c'est parce que lii ngeen di def sa très importance dugg ci biir kër yi di xalaat nit ñi lu ñu bëgg ak lu ñu bëgg a wax parce que nit a ngi bëgg a dem ci télé di wax te télé yi jafe ci ñoom yéen ngeen ñëw ba suñu kër yi dañu introsé dañu wax ak ñoon kon donc loolu yëpp dañ leen ci sant te di leen gërëm. te du ma man ci nag jotal seen liggéey lu ma man ci dimbali leen seen liggéey ndegam neex na yàlla danaa ko def